ñu ngi tey ak Diegui jëpp euh, Fall nekk juriste en droit des affaires nekk itam directrice de la coopération ci commission de protection des données personnelles ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey. Euh, Fatou maa ngi lay nuyu maa ngi kontaan bu baax lool toog ak yow parce que man su may liggéey rawatina may liggéey ak jigéen damay kontaan parce que xam naa ne jigéen ca waar wa yor kër métti na di liggéey métti na yor ay doom métti na yor borom kër métti na waaye loolu yëpp la ñuy conjuguer ànd li ñu yor di daw di rek di ñu bañ ku ñu wax àcc wàccam kon maa ngi lay nuyu bu baax di kontaan toog ak yow tey. alors ñoo bokk mbégte mi ñu door ak euh, ndaje mu ngeen amaloon ci njeextalu ay bés bi ñu génn leen ko immigration clandestine ca Saint-Louis ndaje moom mu nga nekkoon marraine bi est-ce que mun nga ñu ñëwal euh, ci euh, phénomène bi d'abord ban jàngat ngeen ci am Saint-Louis nekk gox boo xam ne daf ci wàll wu rëy aussi lan ngeen tënk ci moom ma leen ndaje nga xam ne yaa nekkoon marraine bi ngir mën a xeex immigration clandestine rawatina ca Ndar. waaw Fatou merci beaucoup ndaje boobu nag li ko waraloon mooy waa kër aw Awa mooy jeunesse su madame le ministre d'État Awa Ndiaye ñoom ñoo ànd toog doon àndandoo di ko jàppale di ko liggéeyal suba ngoon guddeeg bëccëg enrôlé presque 500 jeunes ñu toogoon ni dañuy def seen anniversaire daal di may choisir comme marraine. léegi nag euh, ñu xool ni thème yi nga xamante ni moo nekk à l'ordre du jour mooy l'immigration clandestine mooy euh, mbëkk mi lañ koy wax de mooy le fait que xale yi di dugg ci gaal gi pour mën a dem à l'étranger ñu toog nag waa kër aw Ndiaye waxtaan si waxtaan si bu baax a baax wax xale yi nañu moytu ndax nag àdduna am na loo xam ne am na li am mooy boo demee ba réer ba xamatoo fooy teg sa tànk dafa am loo xamante ni da ngay xool li nga yore woon wolof nee na ku dem ba dem ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon fi ñu jóge woon mooy jom fi ñu jóge woon mooy fulla fi ñu jóge woon mooy fayda waaye ngëm-ngëm ci ngëm-ngëm boobu laay woo xale yépp di leen wax bu ñu ñàkk ba pare ñàkki wolof da koy wax te ñii dem ñëpp genn wàll yëpp ñàkkuñu ndax ku ciy dem di nga fay diggante cent mille ba un million ba un million deux 200 boo seetoon loo koy def nga daaj sa table si jigéen jël sa ay légumes di ko jaay na dina mën a jur leneen ndax commerce am na barke ndax yont bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon def kon damay woowaat xale yi. leen wax nañu delloo si waat xel yi nañu xam ne loolu solution ndax Europe ku fa dem da nga fa fekk seen ay jeunes ñi ngi toog ku dem Amérique da fa fekk seen ay jeunes ñi ngi toog te ñooñu njoxoon njaay lu ndaw mën nga retrouver wu ci mbedd bi nga nekk SDF di nelaw ci mbedd bi ba ñu fekk la fa rey la fa mbaa ñu ramasse la fa alors ko dëkk bii lu mu metti metti metti boo xëyee ngoon boo amul loo añee mbaa nga ñàkk loo reere boo ñëwee sa yaay dina la ko jox mbaa sa tante jox la ko mbaa sa rek jox la ko boo demee ba amatoo foo tëdd di nga am ku fat tëral la ndax dina ne bokk naa ak sa yaay wala sa wóolare papa kon nañu xam ne suñu dëkk bii am na li nga xamante ni mooy solidarité bu fi am foofu ñuy daw di dem de lool duñ ko fa fekk ma di leen wax tam nañu garder la foi fois mooy ngëm-ngëm nañu xam kat yàlla rek moo fi ne foo dem yàlla nga fay fekk kon lii ñuy def ba nga xam ne dafay niru xaru nañ ko moytu balaa suñu borom di ñu mere du ñu am li ñu bëgg ñu àgg foofu tam du ñu amaat lu ñu bëgg nañu delloo si xel yi bu baax nag ci côté boobu duñ ci faral di wax ndax dañuy jaal sénégalais yi ndax métit la nit ñi dañuy toog naan kaay ñu métit lu ko dañuy jaal sénégalais waaye nag nañu analyser froidement yëf yi ñu xool balaa nga koy def ak boo ko defee ba pare dangay fekk ci sa borom lan nga koy wax kon bu njëlee loolu yëpp en compte ñu delloo si xel yi ñu xool nan la ñuy liggéeyee nan la ñuy xeexee lii ba mu jógee sunu dëkk bi. gannaaw njàngat mi ngeen ci def ci seen ndaje mi lan ngeen jàpp ne moo ko gën a sooke surtout ndar gi nga xam ne fa ngeen dëkk mu gën faa bari lool Euh, li fa li li am rek mooy comme li ma lay wax feebar bi nga xamante ni mooy corona bi am mi nga xamante ni mooy mbas mi wër àdduna wërngal képp ñu jékki-jékki ñu ni nit ñu bëri dee nañu France dëgg la nit ñu bëri dee nañu Espagne dëgg la nit ñu bëri dee nañu Europe dëgg la ak Amérique te ba tey ñi ngi continuer di dee ñun ñëpp ñu ngi koy gis sénégalais yi gis loolu rek ni. ñooñu soxla nañu léegi ay nit. soxla Europe jeex na kaay leen ñu dem ñu feesal seen population ma di leen wax ni loolu ay waxi kese la ndax Europe bu jeexee bu ñu soxlaa immigration ndax immigration yàgg na ci àdduna bi bu ñu ko soxlaa dañuy signé ay convention ak dëkk bi te yàgg na am Sénégal ñu soxla ay jeunes wax yan catégorie jeune la ñu soxla ndagam ñu am diplôme wala ndagam ñu amul diplôme wala ndagam ñoo xam ay manœuvre lañ wala ndagam ñoo xam ne ay baykat lañu ñu signé ko ak ñoom defal leen ay contrat bu ñu demee liggéey foofu ñu ñibbisi bu xolu ñooñu seddee ñu defalaat leen contrat ñu dellu kon loolu yàgg na am fii nañu muñ ñu xaar état bi waaye ñu bañ a dégg ay rumeur faatu Sénégal rumeur toog na dëkk bi dangay ànd ak sa nit sax mu nekk sa xarit ngeen yàgg lool dégg naa lii dégg naa lee dégg naa lee nañu moytu dégg naa nañu bàyyi bu ñuy def dara nañu ci duut suñu baaraam ndax kat la nit di mëbët ba mu nekk ci biir xolam ba mu des ci moom moom rek moo ko xam ak yàlla su ko waxul kenn du ko xam nañu bàyyi rumeur yooyu ñuy wax ni am na lii am na laa ba ñuy jël gaal yi nga gis xale yu tuuti yu am un an ngay dem ci gaal xamoo foo jëm nga koy yóbbaale jigéen bu ëmb bay waaja wasin nga dugg ci gaal yooyu depuis boobu ba tey bi ma gisee image mënuma ci sax wax ndax xol bu metti en tant jigéen en tant yaay tant ku ñu jur ak ku mën a jur yëpp dafa metti loolu. d'accord alors ci zone côtière yi nag rawatina Ndar gi nga xam ne fa ngeen dëkk euh, jàpp nañu ne li ko gën a waral mooy euh, géej gi amatul jën nappkat yi la ñu amoon ne nañ ko ay gaal ak i moteur waaye bu ñu demee ca géej ga du ñu am dara est-ce que loolu d'accord nga ci mu tombeek surtout jamono joo xam ne signé nañu yeneen accord de pêche ak waa Union européenne mu jur coow ndax nee nañu géej gaa ngi ñàkk jën alum neen ñuy indiwaat yeneen i bateau napp di yóbbu. Ah, man duma d'accord ci loolu comme li ma la doon wax rek nañu bàyyi dégg naa wala yaakaar naa nous évoluons avec un état et état bien organisé am ay structures yuy toppatoo loolu domaine pêche nag mënuma ci sore tuuti parce que man dama am loo xam dama koy naqarlu ci Sénégal te dinaa ko wax mooy jamonoy wax sa xalaat la ñu toll Sénégal ku jóg bu ñu waxee pétrole nga gis ko taxaw wax xalaatam bu ñu waxee droit nga jóg kenn wax xalaatam kàngam lañu ci lépp bu football jotee ku nekk wax ci alors que yàlla rek mi ko doon sax dafa jël pàcc ko ku ne mu am lu moom la jox man duma ma spécialiste ci pêche waaye ndar ga ma dëkk cosaan cosaanoo fa am na tuuti lu ma ci mën a wax li ma ci mën a wax mooy mënuñu wax ni suñu géej gi amatul dara tax na pêcheurs yi découragé ñu foofu ñu ne état Sénégal dafa signé ay convention ak Union européenne pour mu mën a ñëw jël ci suñu ay jën loolu maykul sens ce que veut am na loo xam ne nekku ci dëgg te gis naa ni état bi weddi na loolu ba ministre de la pêche génnee na communiqué communiqué boobu nag jotaguma ci moo tax du ma ko mën a analyser li ma ci mën a wax rek mooy président Macky Sall kenn ñor ko ku dul Sénégal te yaakaar naa bu dul politique sax nag bu dul dara dara dara xanaa boo nekkee ci dara bay wàcc ba nga dégg waaw góor boo nekkee ci dara bay liggéey sore ci si biir war nga dégg waaw góor kon président Macky Sall kenn gënu koo bëgg jamono ji ñu toll mu am réussite ci Sénégal kon moom du toog loo xamante ne dafay gaañ doomu Sénégalais mu di ci ànd. gëmuma loolu li ma gëm mooy pêche bi am na problème jën yi wàññeeku na dëgg la am na ñoo xam ne ubbil nañ leen suñu frontières yi ñu ngi ñëw waaye licence de pêche yi de li ma ci seetlu mooy président mi ngi doon fexe nu ñu ko yombalee li ma ci seetlu mooy président mandat am au moins ñëw na ci juróom yoon ba ci juróom benn yoon ci biir ndar li ma seetlu président ñëw na defalaatal nañu suñu quai de bi li ma seetlu mooy président ñëw na defal ñu unité de transformation si jigéen ñi nga xam ne dañu nekk ci li nga xam ne produit halieutique la ñu li ma seetlu mooy président ñëw na may na leen ay gaal may na leen ay machine jox nañ leen financement li ma seet seetlu mooy président en personne déplacé wu na dem ba Mauritanie wax ak président bi ñu waxante ak ministre de la pêche bi ba ñu fexee ñu wutal leen ay licence kon kooku yéene la am si ñun te may wax ni bi gën a ji mujj léegi nii mooy li nga xamante ni mooy brèche bi bi nga xam ni président Ablaye Wade moo ko defaroon ci yéeneem affaire bi am ay implication yu bëri yu sonal pêcheurs yi tey ji président lancé na travaux yi ba ñu koy defaraat kon kooku duma yaakaar ni moom mooy def loo xamante ni dina tax ndawu Sénégal di am ay problème hmm. léegi seen ndaje moom bi ngeen waxtaanee ba noppi lan ngeen jàpp ne moo mën a indi saafara euh, ci jafe-jafe bi di émigration clandestine surtout ca Ndar waxtaan ndax bu dee politique d'emploi état mi ngi koy def bu dee limal limal fii yëpp état def na ko bu dee lépp loo xamante ni ñiy dem wax naa la ñàkkuñu donc xam nga li ñu toll ci dañoo ñàkki ñànki ñu bari jàpp nañ ne ñàkk ak ñàkk liggéey moo ko waral. waaw mën na nekk mais loolu lii li ñu war a étudier c'est un phénomène sociétal qui demande une réflexion très profonde mooy ku ci nekk toog. ñiy toog du xale yi kese parce que xale yi kese dematul jigéen ñaa ngi dem jigéen ñi ëmb ngi dem xale yu ndaw yaa ngi dem ñu toog ñu waxtaanaat comme li ma la wax rek désespoir la parce que ñiy dem am nañu liggéey ñiy dem amoon ñi ci ëpp wala ñu jàng dem ba master xam nga un intellectuel ku dem ba am master mu dem ba mu jaaxle ba mu dem dugg jël bateau kooku xam nga tey jii boo koy sensibiliser da ngay toog waxtaan ak moom nañuy waxtaan ak xale yi ñu wax leen nañu dellu ci yàlla nañu wéeruwaat bu baax parce que boo ko waxee ñu ni la politique ak yàlla ak lii waaye yàlla rek nag moo fi nekk faatu bu ñu politiquee ba mu jeex yàlla la ñuy moo fi nekk bu ñu politiquewul ba mu jeex tam yàlla moo fi nekk loolu laal tam yàlla la nañ delloo si waat suñu xel si yàlla loolu dafay tax ñu relativiser waat yépp da ngay xam ni dara taxawul lépp day bouger en permanence yàlla noonu la defalee léppam ku xam loolu dangay ngay daal di taxaw te ñu am nañ ay exemple yu bëri yoo xamante ni mën nañu xool si ñoom ku mel ni Njaga Njaay yàlla ko yàlla yërëm te yéexuñu ñoo xam ni amuñu woon dara commencé si lu ndaw di taxi pare nekk ay chauffeur ñu di leen fay ba mujj ñu am seen benn oto ba tey ñu am ay parc automobile te loolu exemple yooyu du jeex Ngom Sedima mu ngi fii ak keneen ak keneen ak keneen nañu gënaat góorgóorlu te xam ne li ñu leen di wax Europe du loolu rek moo fa nekk li ñu leen di wax Amérique du loolu moo fa nekk da ngay dem càng dootoo gis sa yaay sa yaay dee sa ginnaaw sa papa dee sa ginnaaw say doom dee sa ginnaaw lu ko jar lu ko fi jar à la nga dugg ci gaal nga ñàkk say waajur nga ñàkk yàlla parce que bu ñu xoolaatee yëf yi am nañ naqar nag ndax dee la kenn du kontaan ci dee waaye lii nga xamante ni moom moo xew mën nañ ko tuddee xaru parce que ci li ngay dem xam nga ni dee mën na ci am ndax y a aucune sécurité kon bu ñu delloo suñu xees si yàlla rek dina tax xale yi duñ ko def na gouvernement bi toogaat. waxtaan ak jeunesse bi le président Macky Sall amul lu ko gënal Sénégal président Macky Sall amul lu ko gënal jeunesse bi. ñàkk waxam ci yëf itam am na ñu bari ñu ko naqarlu. waaw parce que xam nga lu tax lu ñu def Sénégal dugal ci politique di politique 12 mois sur 12 7 jours sur 7 24 heures sur 24 Sénégal rek la xew nit ñi mënuñu ko président Macky Sall mënta yor ay services lu mel ni ministre de la jeunesse lu mel ni ministre de la pêche lu mel ni ministre de l' intérieur lu mel ni ministre des forces armées ñooñu ñëpp ku nekk wax ci te président wax na si nag ndax bërki démb journée mondiale des forces armées wax na si si la wax ni ñu ngi jokkaat sécurité bi ak yëpp pour ñiy utiliser gaal yi lan la ñu bëgg président boo xamante ne lu yëngatul ne nga wax ci. xëy na mu initié woon deuil national bi nga xam ne ay citoyens ñoo ko daal di euh, amal àjjuma. waa xam nga deuil national mënuma ci sore parce que président taxawul rek di di yor réew mi ci ay tatonement parce que lépp loo xam ni war na ko mën a euh, wax rek dafay fekk selon les informations qu'il a 480 personnes fu ñu gaañu ñëpp a koy méttitloo ci dëkk waaye moom information yu mu am man aw ma ko yow amuloo ko waaye moom tam lu muy gérer au delà de naqar bi comme li ma lay wax fait sociétal yi mu yor di ko gérer y a aussi mu koy gérer am na loo xam ne bu ñu ko defee dañuy encourager xale yi nañ ko ne di dem jël géej gi parce fekkee ne ñi nga xam ne jël nañ ko ñu dee ci ñu taxaw ni koy naqalu ba pare delluwaat seen kër yi yëkkati alal bu bëree jox leen ko ku nekk da naa dem bu ma dellu siwaatee wala bu ma deewulee xëy na dinañ ma jox xaas mbaa jox samay xaas mbaa jox sama papa xaalis. leer na donc xam nga loolu dafa metti donc moom li muy gérer dafa bëri. Mm-hmm. nañu jël loolu en compte te ñëpp xam nañu président Macky Sall duñu ci détail nag du lu yëngatu rek mu dugal ci gémminam teewul wax na nag. Mm. wax na moom laay waxaat encore nañu bàyyi di politiser lu nekk li naqar la nañu wut solution ensemble et ensemble on vaincra. alors ñu wax ci wàllu politique waxtu bi daf ñoo dab euh, conseil départemental nga ca Ndar am na leader yu bari ku ci mel ni euh, Youssoufa fa jàll ngi koy tudd sànq ñu koy nuyu moom euh, jamono yi ñu weesu attiré na attention au président ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvance bi ne bu ñu àndulee surtout ci local yi ñu jëm mën nañoo daanu ba xalangu est-ce que yow ànd nga ci gis-gis boobu waaw mën na nekk parce que ànd lu mu amul rek tas moo ci am dañoo tàmm di wax américain yi man kaana laahu kaana laahu <laughs> man ni leen waaw yàlla moo ko wax ci alxuraan mooy ànd leen ma dugal sama loxo bu ñu àndoon bu ñu àndee yàlla dugal ci loxo bu ñu àndee ñi ñi ànd ak ñun bu ñu àndee ñi ñi nawuñu bu ñu àndul ñi ñi sib ñu nee naa toujours ci politique ñu ñu jéppi du ñu jéppante ñit ñi dañ ñoo jéppi parce que dañoo nekk tuuti ci population bi gën ci ëpp làmmiñ ñu yaakaar ne ñun ñoo ëpp ci population bi il faut ñu dalaat delloo si waat xel yi xam ni ñi ñu jox seen ay baat ñu ngi fi sorewu fi te nag nañu xool ci président Macky Sall ni mu ubbee yaatal dugal la famille libérale pour dans l'intérêt de ce pays ku nekk am nga ci lu la neex ku nekk am nga ci lu la naqari parce que moom mooy jël ay décision waaye ku xool loolu en macro en micro nga mën a topp loolu moom ki nga xamante ne mooy le maire de Saint-Louis muy la coordinateur départemental de Saint-Louis man moom laay woo. comme est-ce que ànd ba ca Ndar dina yomb. mën na yomb comme mën na bañ a yomb ndax ñi mës a ànd bu ñu tàqalikoo war nañ mën a àndaat dara dara jafewu fi politicien mi ngi yëfu politicien moom mi ngi noonu rek parce que bu Idrissa Seck mën a ñëwee àndaat ak président Macky Sall kon ñi ndar ñi tàqali ko war nañu mën a mën a àndaat parce que ñoom ñoo àndandoo woon ba ñu fii ñu war a mën a àgg moom la maire moom lay lancer un appel ndax coogalu guyam la moom lay tàmm di wax ndax on ne peut pas être plus royaliste que le lu ñu moom li moom moo ñu ko gën moom téeméer juneel moom ci gën a yey ndax deret da cee ne sama wax loolu la lu deret nekk nag lal ko bu nga xamante ne bu dara bu ñu koy yëg moom moo koy njëkk yëg balaa ñun na tëdd tëddaay njaaxanaay woo ñépp ku ne ñëw dugal ci loxoom ndax bu ñëpp dugalee seen loxo kat si la yëf di sotti bu ko defulee itam safaan bi rek mooy am bu ñu àndee ñu am lu ñu bëgg bu ñu tàqalikoo ñu daanu keneen toog. ñu jeexal ak euh, protection données personnelles damay euh, wax ci jigéen ñi particulièrement ndax ku ñu remarqué nga ci réseaux sociaux yi ngay sensibiliser euh, ci commission protection des données personnelles yow yaay directrice de la coopération tey lan ngay dénk jigéen ñi ci wàllu réseaux sociaux yi toujours dañuy nekk victime lu ci bëri en tout cas góor ñi dañu koy nekk mais jigéen ñi ñoo ci gën a fës ci ay photos yu ñu publier ay vidéo wala ay discussions yoo xam ne ñoom ñoo ko moom tey ko CDP mën a taxawoo. merci beaucoup Fatou maa ngi ministre d'État Awa Ndiaye di présidente de la commission pour la protection des données personnelles di wax liggéey bu ñàkk ayib bi mu nekk di def fii ba léegi ñëpp xam nañ lan mooy CDP maa ngi koy félicité di félicité techniciens yi muy liggéey yëpp di leen wax nag da ngeen jël un jour particulier ngeen ñëw CDP bu ko defee ngeen toog waxtaan ak moom lépp luy question nit ñi mën leen si tontu comme li nga wax rek ci réseaux sociaux yi laa nekk protection protection protection ndax loolu mooy sama cër su ma nekk loon sax sax protection de données personnelles en tant que juriste dinaa woo nit si la protection de la vie privée nañu bàyyi xel ni internet mbedd la xam légiféré nañ ko parce que boo fa deful defee loo fa warul def yoon dina dal sa kaw ku jël photo nit dugal ko te waroo ko dugal yoon dina dal sa kaw ku la yoreel tontine nga dugal ci photom yoon dina dal sa kaw ku la leb fayu la nga jël photom dugal foofu yoon dina dal sa kaw wala sama jëkkër génn naa kii génn naa kee Sambata Njaay Dembata Njaay nañu dépassé loolu ku la def lu mu la warul def demal soo yoon nekkee benn nga yóbbu ko fa ku ne bu doon fajal soxlaam kon yëf yi du sotti di wax ni nag lépp looy nëbb nga bañ nit ñi xamal la ko bu ko jàllale pas Facebook parce que boo ko defee nit ki mën na ko génnee ëllëg te bu ko génnee certes CDP mën na wax ak ñooñu ba ñu dindi ko waaye heure bu mu nee toq ci photo nit wala ci téléphone nit kooku mën na ko enregistré ba bu ñu ko dindee ci moto de recherche yëpp itam kooku bu ko dugalaatee rek machine bi dafay continuer waat recommencer waat à zéro kon may wax jigéen ñi moytu leen am na loo xam dara jar ko si àdduna nañu xoolaat bu baax li ñuy def nañu moytu internet bi di ko utiliser nag parce que loolu moom mënul ñàkk. ndax rawatina ak feebar bi mu ñëwee si la xam ni télétravail ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye lépp looy nëbb daal. moytul ko internet parce que mbedd la. même bu fekkee mbedd bu ñu légiférer la. Mm-hmm. leer na jërëjëf Diégui Diop Fall euh, juriste en droit des affaires directrice de la coopération ca commission protection des données personnelles nekk itam euh, conseillère départementale euh, ca Saint-Louis amoon nañu mbégte mu rëy dalal ci matinalu Rewmi FM tey. maa la gën a kontaan Fatou maa ngi kontaan bu baax di nuyu ñëpp di sargal ñëpp di delloo njukkal Sénégal yëpp rawatina waa Ndar gi nga xam ni fa laa ñoom lay bàkkoo ñoom lay sagoo saa su ne di lancer jeunesse sénégalaise ak femmes yeeg ñëpp di leen wax jàpp leen ñoo di bu dagul dikk ca dëkk bi kenn du ko defar à notre place dëkk yooyu ngeen dem dañoo am 150 ans 300 ans jusqu'à 350 ans d'indépendance et même 400 ans d'indépendance fa ñu jaar ba ak si fii duñ leen ko wax kon nañu toog tabax suñu dëkk man de dëkk bi duma ko bàyyi ak kenn yaayu kenn moom ko pap kenn moom ko nañ jàpp ñun ñëpp ko bokk bu kenn daw nañu gëm yàlla rek moo fi nekk newu fi jërëjëf